comme bi comme ni ma ko waxee tantôt moy dañuy ñëw juste pour euh, préfet dañu convoqué won ñu am une réunion d'information pour l'ensemble des impactés de la société sociale au niveau de Paris. c'était ça l'objet de cette réunion là le 12 bi passé préfet woo nañu bañu dem wuy jiko mais euh, malheureusement dañ dañu constaté que que préfet amul respect si ñun ñi xamanteni on est impacté te li ñu constaté mooy dañoo privilégier une société privée de di di di di di naxasaal koo xamante un citoyen sénégalais parce que li ko waral société euh, au lieu préfet sax recevoir ñu dañ ne dafa absenté sec un soi-disant secrétaire moom moo ñu représente moo ñu recevoir dans la cour de euh, de de la préfecture dinañ mettre en place benn comité local moo comité local boobu moom mooy wax stratégie bi xamante de combat bi ñu war a def maanaam ni ñu war a tënkee suñu suñu suñu xeex par rapport à implantation pour léegi lii ñu njëkk euh, résolution bi njëkk a def mooy impacté yi ànduñu si implant ñu dañu bëgg a des fii ñu dëkk dem leneen si mooy dañuy mettre en place benn comité boole si ñun ñu ngi def benn stratégie boo xamante ne mooy xeex pour xool nan la ñuy combattre implantation euh, maanaam taxawaayu uh, uh, Tociali à